rahmatullahi taala wa barakaatu waaw ni ko sëñ Fallou Galas si la waxee rek noonu la demee nga xam ne sëñ bi moom dana yebal ci jumaa ji fan ñaar fukki fan juróom-ñeent ci weer wu ne bu ko defee ñu wax ci ne nañ séentu weer te lu ci waaye xam nga ñëw yëgle ko bu ñu defee noonu ba noppi ne dana génn ci soowu nag di séentu weer bi ak di taatan xibaare ci gox yi bu ñu defee noonu nag ba waxtu wi jot nga xam ne gox yu baree bari jokkoo nañu jokkoo nañu moom ak sëñ Bas boobu muy wax moom ku kuy góorlu ci weer wi la suñ suñu suñ bés Abdul Kudus euh, moom ñoomit it moom it jokkoon nañ moom ak ngi ñu war a jokkool ñëpp waaye ba na ba na gën daal gisuñ kenn koo xam ne wax nga ne feeñ na fenn kon nag ñu di xam xama bañ defee noonu lan daal di jokkoo ak euh, Cheikh Mouhamadoul Mountakha yëgal ko ko mu ne kon loolu doy na ñu kon ñu jàpp ne suba ci dibéer ji mooy mottali euh, weeru tabaski bi mhm. altine mooy benn fanu tamxarit kon ñu xamee ko noonu kon noo ngi ñaanal ñëpp jàmm ak xéewal ak yàgg yàgg ko def ci ay ku koy dégg nu yàgg fi ñi koy dégg ñëpp yàgg fi ak ak ku ci am yéene ci dara ji Serigne Touba euh, Serigne Abdou Diop imam nag moo doon jokkoo ak yéen fii ci Touba. site bu mag bi nga xam ne moo di télévision Jumaa ji ànd ak rajo yi lu mel ne Lamp Fall télévision ak Lamp Fall euh, FM ànd itam ak Jant bi FM ak seen euh, rajo Assalaamy FM ñu nekkoon fii ci Jumaa ji doon ko séntu ànd ak commission bu mag bi kon ñu jàpp ne weer wi feeñut. kon ah, eh, suba mm, dañ koy mottali altine mooy doon benn fan ci weeru muharam ñun ñëpp ñu maa sa xamee ko noonu kon altine mooy doon benn fan kon altine talaata mooy war a nekk li nga xamante ne bii moo di guddik eh, tam xarit muy talaata ja bët sedde àllarba di fukk yi incha allahu rabbi seen mbokk taalibe Fallou Galass la nekkoon fii ci jumaa ji mag ji ànd ko ak ñi nga xamante ni ñoo di rajo yooyu ma tudd ak eh, télévision bu mag bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi barakaatu.